ci li nga xamante ne xewoon na fa mbokk yi suñu ay technicien Pape Mamadou Mbaye ak Karajo am na lu ñu ci defaral ñu ànd ak yéen ñu dem seetaan ko ñu ñëwaat ci plateau bi ñu xamoon ko si Babacar Mbaye Guèye euh, xamoon nañ si misaal wala boog ci histoire lu muy toll ci vingt ci atum 1966 la dugg carrière professionnelle ci làmb nekk na si vingt ans xam ne ba 1986 ah ku ne gisoon na taxawaayam ci làmb ci Sénégal daanaka mbër mu ne daan na ci Sénégal amoon jaloore lool lool amoon fit lool lool loolu macha allah rakam ji wutu na ko si ak Moustapha kon champion bu mel noonu su ko Sénégal yoroon na ko njukkal waaye dañuy tàmbali si di ñaan suñu borom. mu xare ko àjjana àjjanaam yu gën am nañ si yaakaar ndax yàqu fi dara bu rafet rek la def te suñu borom jëlee ko fi yéen itam le gloire de la lutte maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di sant it si turu peuple Sénégal yëpp ndax seen doole ak seen capacité tax na tey làmbu Sénégal lutte sénégalaise comme ni ñu koy waxee xam nañ ko si ginnaaw frontière bu Sénégal xam nañ ko ci àdduna bi yëpp muy loo xam ne dafa ànd ak caada ndax làmb ji du rek bëre mais culture yaa ngi si ngi si bàkk yaa ngi si loolu dafa nekk lu am solo si suñu identité de Sénégalais kon nag maa ngi leen di nuyu Moustapha di la jaale nag spécialement di la sant yooyu ndax xam naa bu baax a baax sa taxawaay yow sa jaar-jaar Sénégal mënu ko fàtte ci làmb waaw yow wax dëgg yàlla la yàlla jàppale jàppale njaboot bi moom lay seddale sunu kóllëre ñu diggante ak yow ñu diggante ak mbokk yi ñu diggante ak làmb ji en tout cas vraiment ñu ngi ñëw délégation bi mu lim. ñu li ñu bëggoon nga dolliwaat. dara suñu ministre des sports bii ndax man dama ko doon ne dama koy nome le meilleur ministre des sports depuis bi Sénégal nekkee ba léegi moom Matar Ba mii. dégg ah, loolu football bi dina ñëw yàlla nañu ko yàlla ci biir ñëw coupe d'Afrique bi <laughs> ah nit nag ku bi noonu tama ñu tëggal leen tama ah li mu defee ak ñun la nag. parce que dañu soxla écoute su suñu gouvernement bi te écoute bi daf ko am du bët di kenn du fot di kenn ku ñëw mu recevoir la ku ko woo mu jël téléphone am loolu nag ku koy def rek da ngay saafoog nit ñi moo tax ñu ne mooy ministre bi gën a ubbeeku ci sport donte nag yaa koy tooy na nga ko gagné gu coupe d'Afrique bi kon boog ci bisu tey bii ñuy président de la république ñëw gane si ziar si Mbaye Guèye di ko ñaanal yàlla ñu ci yàlla dafa barke ba ñu gane gudd gàddu coupe d'Afrique bi bu ñu jógee foofu président bi dañu wàññeekuwaat nag delloo la encore njukkal gërëm la sant la famille yu Mbaye Gueye Tigre de amuñu sa pay ndax ministre yi ma tudd yëpp ñoo nañu fi dama cee yem de Cheikh Ahmed Tidiane Ba sonoon ci mbay Gueye moom tamit ñëw na fii ci kër gi et tant d'autres personnes comme que Sénégal lañ nekk tamit xam nga ne ah l'opposition aussi ñëw nañu fi jàlle si mbay Gueye ndax Mbaye Gueye national international Sénégal la te yow tamit président bu ubbeeku nga ci yu mel noonu ndax démocratie nga ñu woon ak loo xamante ne suñu jeunesse yooyu mën nañ ci teg seen bët ak kanam kon boobu boo tegee suñu kanam danañ wax suñu soxla waxaale li fi jaar ndax yàlla yàlla dogal ngay président de la république ah la ñaan tamit nga joxe seen ginnaaw rek ku sànni yat mu dal yat bi ci suuf ndax tamit nit ñi dañuy wax dal ci kaw président la république hmm. waaye président de tegee nag nga seef ku la mag ak ku la magul seef ba seef say wéjur lu ñëw ci mettit ak naqar da koy war loolu dafay jaadu di ñaan aussi suñu Sénégal gi yàlla saa wasaare fi jàmm ak salaam ndax ñun jàmmal la ñuy dox le sport c'est la paix dañu un esprit sain dans un corps sain mbër yi dañuy dajaloo runkum daje kur pañante alkaat ubbeeku bañ dañ daanante am bu guddee kenn ki dem kër kenn ki reer fa elnag do laay nati Papa Diop mii ak mbéygee Tigre de Fass dañaa ànd mbëri mbapat ba pare mbapat lañ fa dajale 200 francs ak 300 francs lañ jënd xarum tabaski ngénte ko taw Papa Diop mu muy muy Ndiaga Diop te ñoom ñaar dem nañ ba daje ci làmb ji deux fois kenn daanul sa morom Ibou Ndafa mee toog daje na ñetti yoon mu daan ma benn yoon ma daan ko benn yoon ñu machine ñu benn yoon ainsi de suite ñoom kat yi ba ngi fi ñëpp làmb daal ci gàttal monsieur le président mën ngaa dégg coow mën ngaa dégg wuri waaye mbër yi yàlla dogal ñu booloo nekk benn lu ci lu ci xoole sa morom dal sa benn morom jërëjëf mbokk yi gis ngeen loolu muy loo xamante ne ni lu am solo la président de la république ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ci déplacement bi nga xamante ne def na ko dem jaale ji kooku di suñu papa Mbaye Guèye mm. fekk fa njaboot gi yëpp fekk fa ñi nga xamante ne ni aussi ñoom ñoo xaritoo ak suñu papa Moustapha Guèye waaye fekk fa ñi nga xamante ne ñooy waa écurie Fass mm-hmm. père muy ma gis am solo yi père Momar Ndiaye mm-hmm. moom moo jël kaddu wax ci turu njabootu mbay Guèye ok ah, xam nga booy xool ci euh, protocole bi Malick Guèye mi nga xamante ne moo topp ci mbay Guèye mm-hmm. suñu kilifa euh, moo doon jël kaddu gi waaye dafa seddi cër dafa ne xaaj Momar Ndiaye wax ndax mate na ko. Hmm. wax dëgg yàlla xaaj Momar Ndiaye tamit mu yëkkatee kàddu ñi fa nekkoon ñëpp xam nañ ne kii de wax dëgg yàlla a ko na. ñu ñu kontaan ci moom trop xaaj Momar Ndiaye di ah, ni ko waxee sànq rek. Hmm. def li xajul cin bi. Hmm. ñu tënk ko rek ba dimanche bii di ñëw incha allah. ñu gën ko yaatal ci lay di tigre. incha allah fa génn bari na anecdote yi fa génn bari na. la woon aussi. ndax aussi duñu fàtte aussi que ne sunu notre ami commun euh, notre compagnon de guerre Youssou Ndour mu nga foon mm. teew. le ministre des sports Matar Ba mu nga foon teew. macha allah euh, Abdoulaye Diouf Sarr mu nga foon teew. Mm. Adja Mimi Touré gis ngeen ko foofu mu ñëw teew. Mm. le directeur de cabinet du président de la République moom tam mu nga foon teew. macha allah donc une forte délégation moo ñëwoon. et di remercier aussi service d'ordre bi. Euh, ak assistance ak garde corps du président de la République yi ñëw nañu. yombal nañu yoon bi waaye def nañ seen liggéey ni mu waree. Mhm. di remercier aussi seen association des sages de la lutte du Sénégal. Mhm. dont je suis le président Hadj Birame Ndiaye nekk suñu kilifa nekk la xalif général. Mhm. ñoom Amadou Kati Diop ñoom Ibou Ndafa ah ñoom grand Alioune Kandji. et vraiment euh, ñoom Badafay Suguyum ñoom booy Kayre. ñoom Bourkhane Wade suñu doyen pap Diop. macha allah sama mbër. Papa Diop Madiama Diop. ñëw na fa teew yëkkati kàddu yu rafet yu doy waar. attirer attention trop président. Euh, euh, bu président de la république. Mm. parce que ancienne gloire la. et def lu bari ci àdduna def quatre Jeux olympiques. Mm. son son coup barbé de de médaille. et mu taxaw rappeler def historique bi yëpp président de la république président de la république taxaw jël temps respect wu taxaw déglu ko mu wax pendant une dizaine de minutes président de doog a toog donc delloo na ko cër. macha allah nag ñoo maasee ak Mbaye Guèye. Mm. ah encore nag waxtaan nag bu amee dañ koy gën a yaatal. Mm-hmm. mooy nemmeeku nañ ne sunu yi. dañuy am toujours problème nekk ci tawat. Mhm. seen moyen néew. Mhm. ñuy feebar. Mhm. di wut wallu di wut ndimbal ba ni ñu wujjee suñu borom. waaw loolu nag tey jii président de la république dal nag suñu xel. macha allah dañu créel ah mutuelle boo xamante ne ñoom ñëpp ku ci feebar rek dañ mën a ñëw gàddu la yóbbu la.